pétrole gaz bi dugguma ci pour simple raison xam naa ne ci question yi dina dellu bu ngeen ci ñëwee rek dinaa ci wax li ma ci xalaat yaakaar naa ne yooyu mooy li ma doon wax def naa it benn kii bu ndaw ci liggéey bi may liggéey ci CEDEAO xam ne dama ko fekkoon muy loo xam ne def nañ ko waa def ko depuis 2000 mais doxul liñ ko sasoon it mënu ko woon a def ñetti président jiitu nañu ma yàlla dimbali ma bi ma ñëwee te ñu fal ma à l'unanimité président Macky Sall nekk président conférence chef d'état fexe naa ba taxawal tënk benn bataaxal bu ñuy wax acte additionnel xam ne programme la ak doxin boo xam ne moo ngi définir sunu digganteeg institution CEDEAO yi ak ni ñu war a doxee ba peuple bi gis ci seen wàll bi ma ko defee ci biir sept mois adopté nañ ko ak additionnel boobu permettre na ma mu multiplier par ñett lañ fa doon def fexe naa it ci diplomatie parlementaire ba ñëpp xam parlement bi parlement bi mu ngi joué di xam budget communauté bi di ko voté di ko amandé ak di wax ci question yëpp yi nga xam ne moo jëm ci liñ ko sas ndax liñ ñu sas mooy accélérer la processus d'intégration régionale te loolu ñu ngi ciy dox jéego yu rëy ma jàpp ne fii ak juróom benni weer bu ma jeexalee euh, gëm naa ne bu may jóge foofu ñama faloon dañuy réccu ndax buñ sañoon dañ may dolli te du mën a am ndax loi bi moo ko tënke noonu ñeenti at nga mën a def mais def naa ci liggéey boo xam ci baaxub Sëriñ Tuubaa ak yàlla mi nga xam ne lu am mooma ñi ko joxoon seen wuñu woon loolu journalistes yi dama leen di jël témoin ñi ci ànd ak man ci yenn mission euh, sant naa yàlla sant leen ñoom itam ci vulgarisation liggéey boobu ñu doon liggéey te liggéey bépp jaar ci aw yoon kon euh, loolu laa ne woon dinaa ko wax euh, pour ñëpp xam ko coow li lëmbe nag réew mi pétrole